bokki jullit mbokki bokki taalibe yi niñ koy defee at mu jot ngir ànd ak yéen ci màggaluk sarsaara diirub ayubés ca réewum gànnaar ci jéego yu am solo yafa sëriñ tubaa cheikh ahmadou bamba xaadim rasul defoon te ñu koy fàttaliku ak màggal at mu jot loolu tax na nag lu ëpp fukki sit internet ak juróom fasantikoo fas yéene ànd ak yéen lépp lu fay xew-xew ñu daal di leen ko jox liggéey bu am solo bi nag ngir yaatal ko dañ cee daal di lëkkaloog yenn ci télévision yi ak rajo yi ba ci réseaux sociaux yi atum ji nag ñu jàpp ko le 29 mai 2023 di ci nag ak suñuy sponsor di jëfal mboolem ñi nga xam ne nii jàpp nañ ci yaatal liggéey bi ngir tàbbal seen loxo ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul rawatina nag ONG Ahlu kafe ci njiitu soxna maam Issa Mbacke képp koo xam ne ni nag bëgg nga cee tàbbi wala nga bëgg cee jàpp moo xam nga yor sa société wala entreprise wala lu mën a doon bëgg a yaatal sa liggéey sa service wala sa produit ànd ko ak site internet yi ngir yaatal liggéeyab Serigne bi fii ci gànnaar mën ngaa daal di ci numéro yi 77 635 13 63 wala 77 548 25 17 Sarsara 2023 ñu ànd ko ak comité d'organisation bi ak mboolem kuréel yi cay yëngu danañ ko yaatal ba àdduna bépp daal di ciy jotee ci fàttali Sarsara nekk bërëb bu am wàccuwaay ci taarixu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul